kawteef amati fii ci diwaan bu kaw Kaolack loolee nag mu ngi xew ca rond bu ñu duppee mbutu saw ab doomu aadama bu yoroon moto bu bleu boo xam ne nag ñu ngi ko duppee sebon bon daal di nañu rek seetlu ni gannaaw bu mu wàccee jënd ndox naan ca la rek daanu daal di nag ñàkk bakkanam nit ñi wër ko foofee ca barab ba teewul nag ñu seetlu ci teewaay yupp ñi di waay takk deer yi ci no mu gën a gaawee naka doon it ay simili rek ca la ñu seetlu nag teewaay yupp ñi di sapeur pompier askan bi fété fi ci diwan bu Kaolack jël ki nga xamné nak nag moo ne maire bi damay mir may ma ndox gannaaw rek ba mu nané ci la daanu ñak bakanam ñu mëna sédul nak ci jamono ji askan wa ña ci ca del ci le sapeur nak def fa liggéey bu am solo gannaaw rek bu ñu fa séré seen ab auto bo xamné nak ci lañ ko yap yobbu ko lolé ñu japp ni jamono ji nak ñi di way tak der yi des nañu amal rek seen ab enquête ngir léral mbir mu ni mel ndaxte nak lu jublu ci ma enquête ñom tak der yi fété fi ci diwan bu Kaolack ay kangam lañu ci